bu ñu jàppee ne ma loyauté mon engagement ma détermination sans faille auprès du président de la République Macky Sall mooy tax ñu may xoqatal pour ma dellu gannaaw tey laa gën a dëggu tey laa gën a engagé wu tey laa gën a firndeel sama attachement derrière le président Macky Sall man nag dama jàpp ne waa Yewwi bippe nañu ko am crédit te ñëpp xam nañ ne man du ma waxantu dóor fayu laa xam te dinaa fayu et je prends nag l'opinion en témoin man du ma nit ku ñuy wër këram di ko taal du ma genre boobu fii laa dëkk fii laa juddoo fii laa màggee la ma fi def fii si dëkk bi laa ko defee ba askanu Sénégal gis ko comme laal nañu laalaake man ak ñoom la si terrain bi mbir mi nekkatul mbiru police du mbiru gendarmerie coalition wu ñaari parti la muy parti au pouvoir ak opposition bi nga xamante ne gelwaal yëpp c'est les terroristes li ñu bëgg mooy xajamal diine l'islam li ñu bëgg mooy commencé nañ ko parce que chef religieux yi démb li ñu def ñëpp gis nañ ko taxaw bay xotti ormalu chef religieux yi di leen saaga ndey taxaw nañ seen i njiit Sonko Ousmane Sonko taxaw personnellement ne respecte les institutions de ce pays il a appelé à l'instruction normalement Ousmane Sonko ne devait même pas dormir chez lui waru woon dem clinique ba fanaani on doit l'arrêter et le mettre en prison loolu mooy yoon parce que sa gars là ko may dafa ëpp jot na nag ñu taxaw et j'en profit pour faire l'appel à l'unité pour la consolidation de toutes les forces vives de la coalition Benno Bokk Yaakaar et de faire face à ces pyromanes là nekk nekkatul mbirum du mbirum police du mbirum gendarmerie nañu xeex ak ñoom ba pare après ñu àtte ñu te man su ma nee dinaa xeex ak ñoom dinaa xeex ak parce que aw ma lenn loo xamante ne dinaa ko daw te xam nañu ils ont affaire à moi xaw ma kan de mais yeeyu askan bi tey lañ koy enterré fii tey à Thiès et je prendrai toutes mes responsabilités je prendrai tous mes responsabilités parce que ñii li ñu leen may dafa ëpp li ñu leen may dafa bëri xotti nañu ormaalu kilifa diine yi xotti nañu les institutions du Sénégal des gens qui ne respectent même pas le président de la République qui a été élu démocratiquement bu fekkee nañ c'est des patriotes lu leen tere bàyyi ba élection jot ñu dem di voté yi te ñoom ñu xam ne le président Macky Sall peut se présenter en 2024 man ak ñoom ñoo nekkoon li ñu wax mooy nañu xajamal xel ak xolu askan bi nañ ko xajamal yàq deram comme niñ ko defee à son temps au président Wade man seetaan ñuy tal dëkk bi acteur et complice nu avons affaire à des délinquants nous avons affaire à des pyromanes nous avons affaire à des voyous nous avons affaire à des terroristes comme ay terroristes lañ nag ñoo woote gassa gassa ils verront man personnellement j'ai pris l'engagement je vais enterrer la coalition Yewwi Askan Wi ici à Thiès et je le ferai et je et pour terminer je félicite le commissaire Malick Sow des Parcelles Assainies trois personnes ont été arrêtées pour le moment il s'agit de Pape du PASTEF Omar du PASTEF et Bamba Fall du PASTEF il qui sont en fuite ceux qui sont en fuite Ngor seen si la bokk mooy informaticien bi nga xamante ne mairie Thiès Ouest la nekk liste bi nag bëri na am na ñoo xam ne daw nañu ñu ngi leen di wër mais dinañ xam ne man la ñu amal affaire parce que man dinaa régler seeni problème et je prendrai toutes mes responsabilités par rapport à ça ñii nekkatuñu ay politiciens ay terroristes lañu c'est les djihadistes djihadistes lu ñu commencé mooy confréries yi la ñu njëkk a commencé te commencé nañ ko def nañ ko Touba def ko feneen ak feneen démb benn membre si ñoom même poste bi la def démb di xotti ormaalu kilifa diina yi biñ leen seen membres yi arto lañ ko effacé mais nañu xam ne comme ñoo wootee gassa gasa ils n'ont qu'à assumer toutes les conséquences mais man je ne suis pas une personne qui recule tey laa gën a gëm li ma doon tey laa gën a nekk derrière le président de la République tey laa gën a jàppale président Macky Sall ils auront affaire à moi lii daal laa amoon li may wax askanu Sénégal sama kaddu du bëri sama wax du bëri et le combat continue et ils verront et li may terminer mooy nañu solidarité nañu solidarité suñu biir Mame Mbaye Niang yoon muy dem tribunal jabaram rek di ko topp kooku je trouve ça inadmissible te loolu day jeex dootul amati j'en nappel à la mobilisation de toute la jeunesse de Benno Bokk Yaakaar le 30 nañ leen mobiliser ñun ñëpp dem jàkkaarloog ñi parce que jot na jërë ngeen jëf askan bi gis nañ ko bi ñu jógee Auchan bi taal ko fii la ñu continuer parce que man maay seen cible li tax ma nekk seen cible mooy la ñu doon def seen complot la toj parce que la ñu waxoon réunion moom laay dëggal di ko firndeel mooy ñu jël fen weccee ko dëgg te bu ñu wax si bilan parce que le président Macky Sall a un bilan positif ñoom ils le savent très bien parce que la ma waxoon laay dëggalaat les choses sont en train de se parler d'elles-mêmes le président Macky Sall il a réussi de transformer le visage du Sénégal ñu bañ ko moo am ñu naqari ko moo am man nag je ne ferai jamais, je ne serai jamais partie des acteurs et complices de ce qui se passe actuellement dans ce pays. ñii c'est des voyous et on doit faire face à eux. la preuve ñu jógee si Auchan bi lakk ko ñoo ñëw fii sànni fi ay seen kii nu mu tudd seen cocktail yi. cocktail yi gis nañ ko police ñëw na fi démb ba jël na empreinte yi moo waral ñu commencé jàpp trois personnes yi te des na ñu ngi leen di entendre commencé nañu joxe ay tur te ñoom ñëpp ils seront traqués fépp ñu dugg dañ leen traqué. dana leen jàpp su kàttan yàlla suñu borom mais nag nañ jàpp ne man la ñu amal affaire parce que man je ferai face à